ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu ci xéewal ak euh, feebar bi dugg suñu biir suñu borom bi jëlee ñu ko fi ci jàmm ba ñëpp mën a delluwaat ci seen i activité parce que freiné na activité yu bari daaw ak ren moom vraiment duñu benn moom duñu benn moom ren problème bi ñuy bi ñuy jànkoonteel mooy problème yu jàngoro ji ak couvre-feu bi ñoo wàcc tamit ci nit ñi yooyu yëpp nag du dara lu protection fi mu toll xam nga la suñ homme d'État bëgg ci ñun quoi waaw ah, mesures yooyu ñu jël noonu tamit bon ñu mën de suma côté du ma leen ci sikk am naa lu baax la parce que ku leen sangul sataar la bëgg te comme ñoom ñoom ñoo yor suñu suñu suñu suñu suñu lépp yor suñu santé ginnaaw yàlla luñ ñu féetale rek war nañ cee mun a féetalu. Korité bii moom passé na ab jàmm salaam mais nag euh, wàllu feebar moo tax euh, kenn xam ko lay bu mu commencé ba léegi moom wax yàlla xam nga ne jafe-jafe waaw loolu rek moom mais passé na ab jamono ku nekk nag mu ngi tranquille ñun commerce yi moom gisuñu suñu bopp bi feebar bi duggee ba léegi ñu ngi ni dañuy bànk suñu loxo rek ba vingt heures jotee ñu ngi ko tëjal gaay bi dematul noonu liggéey day yëpp tar mais nag sant yàlla lépp lépp yokk yàlla la lii yàlla dogal sant si yàlla côté ren gi metti rek metti metti ba fu metti yam ndax ku ne xam ne ne dëkk bi moom instant yi li fiy dox moom metti na si jaboot yëpp man dama doon jaay ndekki laa doon jaay fii sama kër waaye gis bi feebar bi commencé dugg ci dëkk bi kenn ñemeetut a jaay man maa toog ma bàyyi sama bopp ndax damaa yor ay doom te bëggumaa nekk fii di dajale ay weccit ba feebar bi dugg sama kër ma bàyyi toog xam nga loolu métti na ci ku tàmm di yor xaalis di jox say doom mu métti bay bëgg a dee ci ñun ñu toog nag jàpp yàlla rek te xam ne ñun Sénégal moom gëm yàlla am na fi ndax koo wax mu ne yàlla baax na nañ toog jàpp ci yàlla xanaa bis bu ko fi yàlla jeexee le dina jeex waaye métti na moom man samay doom kenn solu ci yére korité dañoo toog rek jàpp ci yàlla ndax xam ah kenn génnul ñëpp a toog ah fooy génn jëm instant yi ko seeti sax boo fëggee buntu këram boo bu la yëree bu la séenee du ubbi ndax ne ñi fi mu ne kenn bëggul ko dugg seen kër ndax dëkk bi instant yi jaxasoo na jaxasoo goo xam ne fi mu ne nii feebar bi tas na dëkk bi daal jaaxal nañu daal ñun jaaxal nañu wax dëgg yàlla ñun jaboot yi moom sonn nañ sonn nañ ba fu sonn yem ndax instant yi nga yor ay doom xëyoo gontoo toog rek di leen xool te boo xëyee am lu la war na waaw man mi tàmm jaay tàmmal sama doom luñ soxla ma jox leen instant yi damaa soon ak li fi jot am nii moo tax moom cortège bi moom moom xam nga rek dangay reeba tes dund nañ ko ñaan yàlla daal fekk ko jàmm ak salaam mais ak li am nii moom moo tax cortège bi ren xamul lan lay nuru waaw mais nag sant yàlla alhamdulilah li yàlla def lu rek daa gën ci doomu aadama. bëgge woon bëgge ko woon nii mais noonu la ko yàlla dogalee ndax Korité ñun ñu ngi koy doog a def defe Dakar mosuñu koo defe fii dañ ko daan defe suñu famille ci village leen dëkk bëgg a dem état bi nag moom moo nu nax ndax dafa waxoon ni bu demee ba kii jege day maye autorisation ñun léegi loolu lañ yaakaaroon biñ nee ba mu gën a jege ñu def ay demande ñu arrêté ko fekk mënatunoo dem ñu ngi ñaan rek affaire yi jeex ak jàmm président bi ubbi yoon yi suñu ñu gën a mën a liggéey daal ndax gis nga yaay ngi nii yaa gisoo kenn ku liggéey euh, sa bagage mën a dem fenn mënatoo am bagage mën a foo am soxla daal mënatoo faa dem kon ñu ngi ñaan rek mu dimbali ñu. tijjiwaat yooyu daal nit ñi mën a ne ci jàmm ak salaam waaye soxla mën faa dem ci jàmm ak salaam lii daal moom lañ amoon lu ñuy wax. comme dañ la tressé ci biir kër yi moom dama toog sama biir kër dund ko ak sama njaboot di sant yàlla déwuma ci kenn waaw déwuma fenn génnuma sama kër dem fenn samay doom tamit samay soxna kenn génnul dem fenn ñëpp dañu toog resté ci kër gi kenn demul fenn waaw. mbir mi nag moom doy na waar ci fépp la doyee waar métti na ci ñun ñi nga xam ne fi mu toll nii tamit ay góorgóorlu lañu quoi waaw parce que buñ gis nga leen fii yëpp ay ouvrier rek ñoo fi nekk. bu ñu xëyee dañuy toog ba ngoon jot lu ñu njëkk dara ci lu bidu classe lu lu ñu am pour xam nga rek mun cee suturlu dëkkuñu fi tamit xam nga ah hors de Dakar lañ dëkk yëfi gàllankoor nañu ba ñun ñëpp fi mu ñu ngi toog xam nga di xaar suñu borom bi. maanaam corté wuñ dëkk ba quoi. non corté wuñ dëkk ba moom ñu ngi xaar suñu borom bi génneel li ñu ci génneel ñu ko ci jàmm ko waaw man day sama situation noonu laa ko gisee. waaw ah, jërëjëf merci beaucoup seen reportage. ndax ndax ba ba nee dañuy dimbali ci dund bi ba léegi ñun gisuñu dara dara ñun cité Assane Diop fii gisuñu dara ñoo ngi nii bañ jëlee suñu këyit yi booba wóoroogun kër gu nañu dugg fa laaj la photocopie d'identité nga daw photocopie def sa numéro téléphone ñuy toog. déedéet mënumaa dem fenn demuñu fenn parce que Dakar xam nga ginnaaw nañ yëpp léegi koo dem mën lay daw wala kenn xamul daal <laughs> léegi toog da koo tane moo tax danoo rek demuñu te fu ne lan daan dem def siyaar comme ni ñu ko daan defee moom daal goog ren moom doy na waar sëñ bi loolu lañ ci a wax moom. ok merci beaucoup waaw jërëjëf. waaw état bi moom man ñooñu moom seen dara damay ñaan yàlla chaque jour rek damay xëy c'est parce que ñoom li ñu fi wax benn wax la li fi nekkoon de ba ñuy nekk xale ba léegi ñu ñëw ñëpp c'est la même chose benn type de même genre euh, même type de personne lañ. ñoom seen lépp sur politique lañ koy def d'après sax ba ci kor lii nii yàllaa ko fi indee mais ñoom pour l'instant toll ay dóor la man gëm a am gën gëm gën ay xoolal lii nii ay dóor la dañ koy politiser. c'est parce que waxuñu yi li nekk li nekk Séné li nekk ñoom waxuñu ko Sénégalais yi